Oh, my.

kon damay lekk segg rek te gëm naa ne boobaa day gën a metti mais loolu yëpp fekku la ci maa ngi lay sant nag bu baax a baax. dëgg la dëgg la Kaja am na amul selo nee ñu wujé du firo ak ngaayo mhm. euh, ñaar ñu bokk wërsëg rek la mhm. té dañoo wara jappalé seen jëkkër buñ fi nekké di xulo ba xex kon cofeel bu démé liggéey ji yaakaar stress bu bari rek lañ koy tek mhm. té loolu amul benn jëriñ en même temps yow sha euh, allah dama lay gërëmaat bu baaxa baax parce que tamit euh, nga nekk rak bu neexa a ma sha allah ndax nga wéeru ci sama ginnaw rek sas ci man rek té dooma da nga yaru nak neexa a boot moo ma boot la wala damay ñaan ak yàlla lefal ñu ciat

Sandaga laa demoon xuus nii yéen ngeen di raayante nii rek ah. maman mbuus da dangaa bëri tiital torop nekk ci néeg bi ne ñàpp rek. waaw sànq ba tey lay baax na man de Sandaga laa demoon. xam nga koor gi ñu ngi naan suba la wala ginnaaw suba ñu ngi séntu koor ma dem dugg sama yu baax Touba Sandaga ci sama xarit ba waaye. pour na yàlla wala damaa dem dugg sama yi yow. xool leen sama kol yi. ci sama waaju baax. bi moom ci kat Birahim rek ndaamal la ca daaru. ak samay kurus yu baax. yéen tamit dem leen jënd lii. yaa dem daal. tànn fa samay kol yu baax. macha allah tànn fa samay kurus. macha allah nii tamit. ndaxte weeru koor bi bëgguñu si sëba. bëgguñu si petit teg bëgguñu si dara. Mhm. bëgg na ñëpp di muuru di def lu baax. waaw ndax li ngay jëndee yére bu seet ni nga war a jëndee lii mu bëri seen kër waaw dëgg neexul ah. bu ko defee nag ñu waajal weeru koor ñu naan suba la wala ginnaaw suba moo taxoon ma dem dugg sama yu baax dugg biir Sandaga rek defante waa Sandaga yu baax man sax nag waxuma loolu bu wax ci jeexee yow moom waxaguma la waaye yéen ñaar ñii maa gis seen jëkkër jëkkëru kan yow eh, seen dëkkër laa gis yéen ñaar mu nga ànd ak bii gel jigéen moom daa am beneen xale bu dul man jamaa noir bi mu àndal xale ba ange comme ay poto moom daal ma ko tiim ca ginnaaw rek fete na ko ginnaaw rek longo bi di mel ni mbàjjum gerte cofeel nga wax de cofeel gay moom cofeel laa la sama bëtam a ko may yow moom sa bos ma nga baraaye ba fii ma yow ak am si ka mu àndal de jamaa balaa ba mu àndal comme bi jiw ba jëkk laay gis lu mel nii xam naa kuy jongo ba gis ñaari xale yooyu yuppi te sax nag lu ma si gën a métti yow moom sa jëkkër neen day tëjji saison ba cagatu gu mu newee ci dëkk bi nag tey laa ko xam moom cagaam bi da cee dëkk de cagaam bi da cee dëkk ngay weeru koor ku nekk ànd ak sa jeeg naan da ngay tëjji saison maman ye eh, nga ne sa bët bii moo la may cofeel nga gis sa bëta ma ko may waaw may ma ren saison bi laay bu leen tëjee saison yàlla tëj leen di may ma de cofeel géey da ngeen am dëkkandoo du nah, du man wax lu ma yow. lan la lu xew na def. dafay taxawal rek. yow may ma tuuti ma ñëw. ñaata si gëf. nga ñaata si kaay. waaye ngeen moom bëri ngeen fi muy def. kay taxawee kenn mënul ci kër lan la lu xew. maman nga ni man damay bëgg a jommi am jamono changé ki ne tëb miir tëb miir kii ci suba ba léegi génnu kër gi <laughs> ki ma gis maman yow nii lan lay bàyyi yow maman ah yow man fi mu toll nii bëgguma yow dara ci koñ bi ndax sa jikko bi nga yore nga ne yow du yow tëboo parenteer damaa bëgg nga déglu ma yow fi mu toll nii sax ci koor gi suba la koor gi nga bëgg a commencé sa fen yi maman yow baa doo dëkkee ngi nii ci koor gi ma te eh, booy kii jaaxal na ma torop non dama sax seen gi nga nekkee da jàngoor la ci yow wala ay rab yu yuy fen ñoo la dugg maman sa karaw gi dafa ñuuloon maman fen nga fen fen ba sa karaw gi xonk maman maman wàññil dëkk bi yëpp bëtu fenkat lañ lay xoolee li dafa ñaaw yërëmal ñi nga bokkal maman kenn si ñoom fenul ku lil xaq walaw kaana mu ran donte dañ lay rey sax waxal dëgg loolu la yàlla bëgg du la wàññi da lay yokk del wax dëgg maman wàññiwu la dara xool li nga rafetee ak ni nga mel mais di wër di fer rek dem na dem a dem ba wàññi sa taar maman. yow tëjal neef sa xol yu bëri. non lu ma la bëgg wax dama koy xeeb say fourrir yu bëri ngay mel ni marimar benn loxo kañ laa ko gëj a gis. sama bës son zone la te sa yow sa bës noir la woon. jug leen eh jugal fatu ji leen. la suñu borom de moom <laughs> daf may baal. li ma fi weex de aayut waa daf may baan samay kol yaa ngi nii koor gi daal dégg naa suba da wala di ginnaaw suba te te koor gi 30 jours la te wooraguñu sax benn fan nag <laughs> yàlla bind samay baakaar daf may baan waaye man nag war naa seetaan sama góob de man daal nekk ci dëkk bi ku ma ronguñu nduroo ma jiñ ko kenn man daal mën naa fen dëgg dëgg damaa mën a fen nag